lu yégle kaay bi xëy tey ma daal di leen ko yéeral bés bi le jour daal nañ dikkal ñun nag ci ndaje bi nga xam ni son excellence Macron daal na koy daje ak président Bassirou Diomaye Faye yëgle kaay bi di ñu xamal ni ñoom ñaari njiiti réew yi maanaam daanaka si taabu la ñu toog lu mat ñaari waxtu nag yoo xam ne toog nañ ko si taabu mën na la dindeek rek tey waxtaan waaye gis nga waxtaan bi nga xam ne ñoom ñaari njiiti réew yi ñu ngi ko doon waxtaanee génnul si li nga xam ni mooy mbirum ne bi am na ko si àdduna wi rawatina si Afrique lépp daana koy waxtaane ak ki nga xam nii mooy président Emmanuel Macron waaye gis nga bés pile le jour ci boppam moo ñuy xamal nii weesoo mbirum vaccin ñoom ñaari njiiti réew yi daal dañuy waxtaan si lëkkaloo bi nga xam ne réew mu Sénégal daal na koy lëkkaloo ak réew mu France dama ne ci naka la ñuy def ngir mën a taxal ñaari diggante réew yi ay coopération yi nga xam ne daanaka moo leen liggéey turbine yéene kaay bi ne ko kan kay gis nga visitu njiiti réew mu Sénégal sa diwaanu France yëkkale kaay nañu gis nga kon diggante ñaari réew yi ñu nga gën a taxal diggante bi te ñu ngi koy gën a dooleel tamit ndax moom président Bassirou Diomaye Faye ngi ci tànku njiiti réew ma woon Macky amul xàjj ak seen benn la rek maanaam Macky Sall lu mu nekkee woon daanaka Bassirou Diomaye Faye tamit si la de ndaka def ngir mën a rataxal tey dooleel diggante ñaari réew rek tur bi yéen kaay ne ko gis la ñuy def maanaam ngir taxawal tey kartanal diggante réew mu France ak réew mu Sénégal waaye génnul si vaccin bi nga xam ne moom lañ Branco daal na koy bind tey koy publier maanaam si page am yëkkale kaay nii gis na moom Juan Branco nee na moom déception dëgg dëgg dëgg la am ak mbetteel déggal loolu yëglekaay bi ñu xamal ni gis nga ñoom panafricanistes yi si boppam seen i coow ak seen mbir daanaka fayagul de waaye lépp ak si yëglekaay bi rek yëglekaay bi daal ñu xamal moom Guy Marius Sagna

waa quotidien di dikk ak ñun ci diggante ak ñaari réew yi ak ñaari njiit yeeyu rek réew mu France ak réew mu Sénégal mën na la moom président Bassirou Diomaye Faye ak Emmanuel Macron di ki démb ay waxtaan nañ des ci table la ñu toog di ndékki di a jaar yoon rek yëkkle kaay bi nga rupture bi nga xam ne woote woon na ko ah waa baax na nañu dem rek le Dakar waa quotidien di dikk ñun ñaareelu xëtam bu njëkk ci page de di ñu xamal ne gis nga CMS Crédit Mutuel du Sénégal ay nañ ab scandale moo fa ne scandale boo xam ne gis gis nga na si coow li nag ndax ma ngi sa bi dossier ba dégg loolu source à quotidien di dikk ñun nag si Moussa Diakhaté bi nga xam ne moom la ñuy tabbu directeur cabinet bu Birame Souleye Diop waaye gis nga coow nga xam ne am na si nomination boobee source à daan siy dikk ak ñun rek ndax histoire bi nga xam ne moo nekk si ginnaaw tabb gi nga xam ne tabb nañ ko Maysa Diakhaté ci koo xam ne moo yàggoon buntu xatal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko rek waaye kon kay lan moo tax ñu daal koo xam ni lu mu yàqul tey deful Ousmane Sonko amul laa la wax nag lépp loo xam nii maanaam ab histoire bi xew si ginnaaw nomination boobee Maysa Dia directeur de cabinet Birame Souleye Diop yéegle kaay bi di kër gi Modou Moustapha Mbaj bi nga xam ne ab ingénieur en technologie la si automobile di liggéeyee fi nga xam nii mooy sa duwaanu BMW sa duwaanu Bayern Munich maanaam sa réew mu Allemagne la de ndax moom Modou Moustapha Mbaj la ko soxal dëgg-dëgg jamono ji kay mooy mën na la lay def ba daal di créer ab industrie boo xam nii oto lay defar fii si réew mu Sénégal de made la mu wax kay mooy na la vingt cinq milliards de francs CFA cote bu ko amee kay mën na koo defar di ne la made Sénégal la su ko defee ñu di ko jaay di kay lu baax la waay Bougane Gueye Dany ay kàddoom mu ngi journal Tribune yéene kaay si page cinq rek yëkkale kaay bi ñu xamal nii gis nga moom Bougane Gueye Dany njiitalu gëm sa bopp wax jëmale ko si wàññi dundun gii man la waaye man la gis nga si déguerpissement bi nga xam ne na si marchand ambulant yi de kon kay moom Bougane Gueye Dany fi mu daal nay mer bu futt wax li xam ne moom la gis doxale nu jiiti te ñi ko def mooy nouvelle autorité yi rek kon koy loolu dëgg du yoon ndax tam mënees nañ koo xoolaat nee na Bougane Gueye Dany fi ni boo bëggee dégg dëgg la mu na ko sa enquête la nekk de ndax détenu yi nga xam ne ñoo nekk si kaso bi ak seen i téléphone kon koy boo bëggee dégg dëgg cooli fayagul ndaxte boo demee si kaso yi si boppam ñoom détenu yi nga xam dañoo daw rëcc ñii ñu agressé kon koy fi mu ni enquête ba sa téléphone tasaare li nga xam ne mooy téléphone portable yi su ko defee ab enquête ci téléphone yi xool maanaam lañ lañ ci doon def ba yenn jëfin yu nga xam ne daal lay koy arrêté teg ko loxo de ñu jeexalee ak enquête quotidien biy dikk ñun ci rapport yi nga xam ne mën la gaa def nañ ko immigration irrégulière mbëkk mi Barça wala Barça barsàq la ilaha illallah maanaam si diggante ak janvier jàpp mai 2024 kon koy gis nga chiffre bi si boppam moo jéegi dayo ba maara day taali décret bi dañoo xamal ni gis nga lu toll si ñeen fukki bato ak juróom ñaar yoo xam ne dafa réer si géej gi kenn gisu ko kenn tegu ko gët bato yooyu dafa yëpp ay dit ba fees dell maara day taali dama ne gis nga ba tey yooyee si juróomi weer yi weesu atum 2024 bi la de te lii déggal lii lii tamit lu bëri la de ay doomi aadama daal la ñuy faatu ñàkk seen bakkan comme ça rek manal te kenn tegu leen gët si géej gi de enquête quotidien nañu gis nga te ñi boo leen xaymaa ñu ngay bàyyeekoo juróom ñaar yu bokkul seetal lii tamit enquête quotidien na ko kon koy gis nga réew yooyee jàppal na Mauritanie mooy réew bu gën a métti la de ndaxte ñu si faatu ñàkk seen bakkan bari na de yëkkale kaay bi nañu lu toll si ñetti junni ak juróomi benn téeméer mën ñoom tamit daal ñuy faatu ñàkk seen bakkan Elena Maleno Garzón di ab taskatub xibaar espagnol yëkkati na ay kàddoom enquête quotidienne gis nga moom Elena Maleno Garzón la mu waxee dëgg-dëgg mooy a daal di teg ab protocole boo xam ni protocole de sauvetage la de lii mooy dëgg bu weesoo nga xam ne gaa jël nañ ko si contrôle migratoire bii kon kay dañu créé ay protocole de sauvetage bu ko defee au moins mën a